sénégalais ñu ngi leen di nuyu. xam nga li may njëkk wax mooy lan mon père maa ngi lay nuyu baax dal na yàlla guddal sa fan defal la jàmm defal na sutura xam nga li may wax mooy lan képp ku toog sa kër yéen a ngi seetaan télé yéen ñëpp di déglu ñi toog seen kër yi naan ñii dañoo am jot ak ñii nañoo sawar ak nañ dem liggéey ak amuñu métier isa képp ku koy wax laa wax bàyyiwuma kenn buñ la joxoon drapeau Sénégal nga taal képp ku koy wax rek bu la joxoon drapeau Sénégal nga taal ko. Guy Marius Sagna lii mu xeex bu ñu dugal ko ci kaso bi muy courant bu seer mu koy xeexal ñëpp di ko xeexal ba ci homme de tenue yi taxaw di ñu garder man maa taxaw fii ci télé bi déglu ma déglu ma man maa taxaw fii ci télé bi ma ni Macky Sall le secrétaire général bu ma ni ko suuf si ngay jël di ko jox mbër yi di ko jox fecckat yi. daggalal police yi ay terrain bu ñu am suñu dëkk parce que amuñu suuf waaw man maa wax Macky maa ni ko Macky Sall yi bu nekkee ci caserne yi ba seen ba ñu retraité bu ñu leen di génne ci anam bu ñaaw lañ leen di génne te du yoon man maa ko wax man maa ni Macky Sall homme de bu ci retraité billahi boo ko fekkee ci location lay nekk ñu ci bëri dëgg leen di yërëm man maa ko wax ni Macky Sall statut administration pénitentiaire ñun ñu ñëpp kaso jombul kenn mais pénitentiaire yi buy sonn ñoo la a sonn xoolal bu ñu defee concours ba deux cent cinquante génn ci wala trois san dafa am ñoom ci seen biir ñoo xamante ni da ngay dem rocce ko defaat yeneen concours bu concours yooyu jàllee ñu bàyyi concours administration pénitentiaire bi dem def yële ndax manqué statut bu baax pénitentiaire yi bañu soxoruñu soxoruñu ci détenu yi xam dañoo mel na ay mala dañoo nekkul ci condition yu baax Macky Sall Sénégal vertueux bi muy woote bu fekkente ni dëgg la ci moom ak nguuram nañ defal statut administration pénitentiaire laa wax te nag kii Mari Sagna bu génnee ci kaso fi may daaneel sama wax bu leen foog ne dañuy arrêté combat bi dafa am ñaar yu ñu xam nga ñaar yi mooy yan xoolal ñaar yi ñu ñor xam nga mooy lan troisième mandat ni ko Ahmed Aïdara di waxee troisième mandat xaju fi